salaamaaleykum mbokk internet yu Jolof sport et santé tey jii rek ñu delluwaat di leen xamal li nga xamante ni mooy gën a fës si seen xibaar tàggat yaram rawatina euh, si wàllub euh, làmb waaye nag mbokk yi lu gën a fës tey ji rek tombé li nga xamante ni mooy 10 euh, janvier atum 2022 mbokk yi lu si gën a fës nekkul dara dul combat bi nga xamante ni moom la ñëpp di laam-laamee mooy komba bu dox si diggante kooku di Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang numéro 2 bu Pikine combat boobee rek nga xamante ni jamono ji rek dañ ko tuddee combat de toutes les dangers ku ko tëgg kat nekkul kenn ku production waaye nag ci euh, Gaston Mbengue moom nag euh, xamul ni sax euh, combat bu mu tëgg mooy combat de tous les dangers ginnaaw bu ko tëggee jamono jooju rek nga xamante ni dafa tombé le 16 avril atub 2021 foofii la ko tëggee ca këram sax la taxawalee combat boobee nga xamante ni mooy combat Balla Gaye numéro 2 ak Boy vingt ci atub 2021 foofii a Maris waaye moom euh, Gaston production xamul ni sax euh, mu ngeek euh, li nga xamante ni mooy affiche bu gën a neex si at bii nii rek nga xamante ni moom la ñu nar a dëgmal wala at bii ñu génn atub 2021 ginnaaw ba mu tëggee combat boobee diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang Balla Gaye numéro 2 nekk foofee ca Guédiawaye ak Boy Niang bu Pikine mu nar a doon derby Pikine waaye combat boobee rek combat bu amateur yëpp soxla ginnaaw bañ sa li nga xamante ni mooy ay affiche mu doon combat bi nga xam ni tam combat boobee rek nga xamante ni moo defal li nga xamante ni mooy publicité boppam ndax tamit combat boobee rek combat bu ñëpp soxla ndax kii di Boy Niang dafa yàgg laaj kii di Balla Gaye numéro 2 comme Balla Gaye numéro 2 na mu ko doon defee a kookee di Yaxya Diop Yékini mel ni kat boule bi dafa renversé waaye nag combat boobee rek ginnaaw ba mu taxawee ku ko taxawal nekk Gaston Mbengue mu doon combat de choc wala combat de toutes les dangers waaye nag doomu. Double Less bi moom rek ginnaaw ba combat boobu eh, li nga xamante ni ñëppoo ko joxoon li nga ni eh, mooy eh, favori bi ginnaaw ay pronostic waaye nag kii di doomu Double Less bi jamono ji si li nga xamante ni mooy sous pression ndaxte kii di Balla Gaye numéro 2 la mu bëri contre Bombardier kenn xamul la mu moo tax jamono ji ñëpp na daan doomu dégool bi di Boy Niang numéro 2 waaye nag combat boobu rek kii di Balla numéro numéro sax moo nekkoon euh, favori bi waaye nag année yi ñu génn kat dañoo gis ni affaire yëpp mujjee changé ginaaw ba mu amee defetam diggante moom ak bombardier bu mbuur loolee sax moo tax pronostic yi rek mujjee dëpp naan euh, kii di euh, Balla Gaye numéro 2 ba ñu xamoon bu njëkk ak bii nii du benn loolee sax moo tax amateur yëpp jugaat naan combat boobee rek dafa war a taxaw dafa war a taxaw nekkul ni dara sax ni Balla Gaye 2 moo mën kii di Boy kii di Boy Niang waaye nag combat bu amateur yëpp soxla la ginnaaw ba mu jugee si defetam moom ak bombardier bu Mbour moom Balla Gaye numéro waaye nag kii di euh, Boy Niang naam sax jugee na si euh, defet digganteem moom ak Tapha Tine sax moo tax kii di euh, Boy Niang numéro 2 dafa war a génnaat rek wane ni ay supporteram wala sax wane waa Pikine moom rek ab doomu Gaynde Njaay la te ab mbër bu mën a def li nga xamante ni lu ñëpp di coow la si làmb sénégalais bi loolee sax moo tax kii di Boy Niang taxaw rek. di gën a dëggal boppam digganteem moom ak Balla Gaye numéro 2 di dafa war a ñëw ñu bëri mu doon combat bu nar a neex loolu waaye nag mbokk yi ginnaaw bañ fi jógee dañuy wax si ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 moom sax ba mu ñàkkee combat am si par avertissement foofee ca euh, arène nationale si moom euh, bombardier bu dafa jàppoon euh, ñi nga xamante ñooy arbitre penalty ginnaaw ba ko arbitre joxe li nga xamante ni mooy ndam par avertissement moom Bombardier ba mu eggee ba Mbour rek si la daf li nga xamante ni mooy recours déposé ko foofee ca CNG la ci toog 24 heures wala sax 48 heures waa CNG génnee recours boobu rek xamal ni li nga xamante ni ñooy amateurs yi wala sax ñi dund wàllu làmb kii di Bombardier bu mbuur daan na Balla Gaye numéro 2 par chute si loolee sax moom Balla Gaye numéro 2 ak manager am boobu di Papa Babou dem nag foofee a benn télé ñu ko naan 2STV ñoom rek ginnaaw ba ñu defee seen point de presse wax nañ ni nag comme jox nañ kii di Balla Gaye numéro deux li nga xamante ni mooy ab défaite si jouru làmb ji ñoom rek ak Balla Gaye numéro 2 ak ménagère boobu di père Babou ñoom nag ñu ngi laaj ñii di waa ñii di waa CNG reliquat yooyu sax nga xamante ni daggoon nañ ko Balla Gaye numéro 2 par avertissement si jouru làmb ji dañ leen ko war a delloo ndaxte euh, dañoo jox kii di euh, Balla Gaye numéro 2 li nga xamante ni mooy défaite euh, par chute moom Balla Gaye numéro 2 moom naka nee na ñii di waa CNG nga xamante ni ñoo ŋànk làmb ji wala sax ñoom ñooy arbitre arbitrage si wàllu làmb sénégalaise ñoom rek moom rek di Balla Gaye numéro 2 moom nak nee na waa CNG dañ koy jox li nga xamante ni mooy xaalis buñ ko daggoon xaalis boobi rek jamono ji mu tollook lu mat 3 millions de nos francs CFA moom Balla Gaye numéro 2 nee waa CNG. dinañ ko jox si nii wala si na ginnaaw ba ñu jëlee euh, defet ba rek jox ko ko moom par euh, chute moom euh, Babou di manager bu Balla Gaye moom nag bind na li nga xamante ni mooy ab bataaxal ngir jébbal ko waa CNG ngir xamal leen ni kat ginnaaw ba ngeen ñu joxee li nga xamante ni mooy chute te bombardier dafa ab recours ba ngeen génnee ko ne dafa daan. Balla Gaye numéro 2 par chute kon avertissement yooyu rek nga xamante ni joxoon ko doomu Double Less bi di Balla Gaye numéro 2 ma ca géej waaye moom rek da ngeen koy delloo li nga xamante ni mooy reliquat am boobu rek nga xamante ni ah, si ay tagg rek ngeen ko si ay avertissement rek ngeen ko taggee te reliquat boobu rek nga xamante ni toll na si 3 ah, millions de francs CFA kon moom ah, Balla Gaye numéro 2 waa CNG dinañ ko jox li nga xamante ni mooy xaalisam waaye nag coow li mooy est-ce que est-ce que avertissement yooyu rek ñoo bëri wala appareil yoo bëri rek lay doon ba Balla Gaye di laaj li nga xamante ni mooy 3 millions ñii di waa CNG waaye nag laaj ba mooy waa CNG est-ce que dinañ jox kii di euh, Balla Gaye euh, numéro 2 li nga xamante ni mooy euh, reliquat boobu rek nga xamante ni buñ ko ko joxee dina tolloog lu mat 3 millions de francs fa kon boo kii rek ñu delluwaat di leen waxal combat de tous les chocs combat de tout les dangers mooy combat bi nga xamante ni moo nar a dox si diggante Balla Gaye numéro 2 ak kooku di Double Less ak Balla Gaye numéro 2 bu doomu Double Less ak kooku di doomu dégool bi di Boy Niang numéro d monsieur Pikine mu nar a combat bu nar am coow la waaye nag combat bi nga xamante ni amateur yëpp ko soxla kon mbokk yi li moo seen revue de presse bu ñu leen indiloon si wàllu làmb tey jii rek tombeel li nga xamante ni mooy 10 janvier atum 2022 ba beneen